Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est ay qui Cine TV laa tudd maay présidente groupement jigéen ñi fii ci village bi Maxaj tey li waral ñun ndaje bi mooy ñàkkum courant bi parce que Macky Sall moom la ñuy waxal courant bi mi ngi ci dëkk bi ñu wër am pagay waaye ñun boobu ba tey jotuñu ci courant bi dañoo wolawal ba sonn dañoo soq a soq ba sonn boo bëggee wol da ngay dem 7 kilomètres ñaaxar da ngay dox dem dem woli bàyyi sa sa sa liggéey ci kër gi mu lay xaar dox ñëwaat wol si boo bëggee glace danga jënd mbuusu glace fanweer wala mbuusu glace deux cent gis nga sama bidon bi ma yor dañu koo ñaw sax dama koo seddal ba mu sedd xool ak tabaski bi ñu nekk suñu yàpp yëpp ay yàqu ndax ñàkkum courant bi suñu yàqu yàpp bi yëpp ay yàqu ndax ñàkkum courant bi fi mu nekk ñu ngi ci période nawet yàpp bi day yàqu amuñ fu ñu denc suñu yàpp waxal Macky wax leen Macky Sall si wax ji may wax ni mu dimbal ñu ngir yàlla dimbaliñ ci courant ñu soxla nañu courant dañu jàppale courant la ñu jàppale ci courant bi courant la ñu bëgg nañu jàppale village yu Maqaj ñu lu ñu nekk devoir suñu dañu koy def suñu transformation produits locaux yi mënuñu ko rek ne amuñu lu ñu liggéeyee parce que amuñu courant ah bu ñu amoon courant dinañu mën a liggéey ñun jigéen ñi parce que ñun liggéey lañu xam liggéey la ñu bëgg nañu jàppale ngir yàlla waaw buñu bëggé charger suñu portable dañuy dem kilomètres dañuy dem ñaaxar brancher sa portable ba muy fess nga bay ko bu suba nga dem dox jëli ko doo mën communiquer do buñ la wowe sa do mëna jot da nga gis ay appel am pagay metti na torop nañu jappalé waaw am nañ ay étudiants yo xamante mom wa da examen bi nga xamante mom lañu lañ ci ñi am problème pour jang sen machine yi bu ñu am courant pour ñu mëna ba fu ñu mëna connecté wu problème bu mag la ci ñun ci ñom nañu jappalé ngir yalla han ah. te fi mu nekk ni euh, am dëkk bi yaatuna presque juroom ñaar fukki nit juroom juroom ñaar téeméeri nit ñu tek tek na mom wax dëgg wa wax dëgg ya dëkk bi yaatuna torop wa nañu jappalé bu baax. joy Toogal na la maanaam qui euh, parle français en bleu Courant la ñu bëgg maam se Diouf ni em gen saate fene na leela ma xaj def nan commune Patar arrondissement du Niakhar dom leng rek injegu ta refu ñak courant saate fe soxla a courant lool anda jamono fe ndiki courant refu fop o kin we fi dara o jege nge courant xa ba no sona xesona lewa waxe sona rew wi anone den na njala calel pin ki a sona ka ngumna a saret mbit ande toyo a bo ñaar bit saaxa ke mbidna in ambaago unino yo kaak den aduma lol. te courant dal ten i mbugu ñoxrole lengo courant courant courant kene yo coono fa maakoona in charger o portable daanaka xanu ñaaj kilomètre ɓetu ɗik pour waago charger in bo num tooxiida daanaka ta fiide to nu anda ye jamano fe i ndefna o portable waage ñak ten wiin we mbaxtaan ta tena jangta tena mbiɗta yo fof ha ordinateur hay ni ano anoyo hay lewa he ndefna meno yo ambaro janga ndefa étudiant kanje ga jafe jafe fa maak kene dal te ndef ɗum ina geɗa président de la république du sénégal mu Macky Sall wen o dimla sate feke na courant de toute façon yaga bo ndik in kay mbiyake warna in wote mutta musna jeg mene a jega nen nafeluna in koy revendication fa leng fe yo i geɗanoyo no jek no tegin da ciya ino yo courant yaa am nécessité yoo saate fee dina soxla uyo Hurra, la nyumbani! Hurra, Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. seen ay xibaar ci Sine TV